baax a baax a baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay euh, comme niñ koy defee toujours di ñaan yàlla rek vidéo bi boo leen ci jotee ngeen partagé ko ngeen fexe mu yegg fi mu war a yegg yëpp incha allahu rabbi ndax euh, ñëw nañu pour defal leen ay révélation de taille ndax dañu ne woon man mënuñoo nelaw mënuñoo noppalu ba yàlla dimbali ñu ñu traqué kii nga xam ne moom mooy nervi numéro 9 boobu ngeen doon gis mu yor arme bi te policier bi jox ko arme bi mu dem di tiire doomu aadama yi ba keroog bi police di def seen conférence de presse moom la ñu jël comme exemple ne dañu am ay forces occultes parce que ñoom bu leen fàtte ne ci benn logique rek la ñuy dox Macky Sall ak ay nitam ñoom il parle avec l'opinion internationale dañuy fen di sos di tappale di wax lu dul dëgg gis ngeen ndax benn nitu Macky Sall bu dénoncer violence bi Macky Sall nekkee ci dëkk bi ndax gis ngeen benn nitu Macky Sall bu wax ñaawteef bi nga xam ne moom la Macky Sall def ci dëkk bi ak ñi Macky Sall boom ak jël seen bakkan on est à quatre-vingts morts en ce moment quatre-vingts ce que nag may dégg quatre-vingts morts la ñu am fi mu toll nii ci li ñu xam la ndax nombre yi c'est pas encore officiel ndax ëpp na loolu fi ñu toll nii am na moor yoo xam ne compté guñu leen ñu leen waaye ministre jeunesse tueur de Macky Sall ministre de la jeunesse tueur de Macky Sall saa boo leen ko gisee rek day génn di génn di divertir di def ay hors di wax yu rëy pour ñu dem ci côté yooyu fàtte li nga xam ne moom la Macky Sall def Sénégal Macky Sall killed eighty people Eyri déglu leen ma Macky Sall quatre-vingts personnes la boom ci Sénégal quatre-vingts personnes la boom la jël seen bakkan waaye li ñuy wax ci Sénégal yëpp day bëgg nag ñu yóbbu débat bi ci Walfadjri macha allah ñu nekk fi Sidi Lamine Niass def fi liggéey bu jaggi woon dayoo mu attaqué tele boobu xam ne loolu day nekk euh, conversation nationale loolu day tax ñu fàtte leen li déedéet. Macky, tu as tué 80 Sénégalais. Tu as assassiné 80 Sénégalais. Et tu as emprisonné 700 Sénégalais. Si Bemen Fulbe, Macky, ko yimɓe capanɗe jeetato mbari ko yimɓe temmeɗɗe jeeɗiɗi mbaɗi e kasoji ɗi mbaɗi mandinkol makiye mo tan seyle faa nga mellon folo ani mo keɓe worowlale ɓe kaso kono maren joningo makisalla dantanchege seria kari ada kamo ñeri seriaro kasonga il faut ngeen xam lii il faut sénégalais yi xam lii il faut sénégalais yi xam li tax Macky Sall di bëgg toujours di indi ay sujet yu bees pour fàttaloo ñu ancien sujet mais il n'a pas compris que cette cette nouvelle génération de sénégalais c'est des sénégalais qui sont éveillés kenn mënuñoo nelawloo information bu am dinañ ko topp jusqu'au bout et le président Ousmane Sonko est toujours barricadé dans sa maison li tax ma leen di wax lii c'est parce que am na ay dànkaafu yu ma fi defoon nga gis ay nitu Macky Sall kon ni ma leen ko waxee Anita Ndour la tudd muy Pape Malick Ndour ñëpp xam ko Anita Diop muy ministre tueur de la jeunesse dégg ngeen Pape Abdoulaye Touré nee na ñoom ñu moom moo leen yónnee ay nervi yi ko dóor ba gaañ ko ba gaañ ko gaañ yu metti gis ngeen fi démb mu génn def benn sorti désorienté hors sujet mu ne Ousmane Tounkara déglu leen ma de Ousmane Tounkara mii ngeen xam Amérique yéen ñëpp xam ngeen ma ragaluma j'assume mes responsabilités ba suba damay yónnee xaalis Sénégal fépp fu ma ko manee pour ñu dal ci kaw Macky Sall ak ñoñom nee na yaayoo Pastef man la ñu soxla man déglu leen de nee na Pastef man la ñu soxla pour am cinquante mille dollars déglu leen ko ndaw kii ce il n'est pas ambitieux cinquante mille dollars Pastef am na ay milliards guddi yi ñu toll Pastef la jeunesse patriotique ñu ngi dajaleel Pastef fu ne ci àdduna bi ba mu toll ci ay milliards yéen gis ngeen ne Pastef bu wootee dajale xaalis dix minute mu am milliards nee na Ousmane Tunkara la Pastef soxla cinquante mille dollars yónnee ko jóge Amérique pour taal Sénégal ah Sénégal li ko war a taal seerul de cinquante mille dollars day fen man maa leen ko wax amul fenn fu benn doomu aadama mën a génnee ci àddina Ousmane Tunkara mu yónnee quatre-vingt mille dollars Sénégal wala cinquante mille dollars wala vingt mille dix mille dollars sax suma ko yónnee Sénégal xam ngeen li waral lool man je suis un exporteur man damay exporter sama marchandise Sénégal Sénégal sama xaalis man Sénégal lay jógee ñëw Amérique wala ci yeneen réewu Afrique yi ñëw Amérique donc loolu muy wax day fen fen bu tooy kat di ci tudd ay turu jàmbur di ci tudd ay société jàmbur comme ñoom loolu la ñu baaxee di tëj ay société jàmbur di attaquer ay société jàmbur ñoom di ñu créer emploi emploi yi ñu créer ñoom la ñuy créer ñoom li leen tax a jóg Sénégal mooy emploi yi ñuy créer ñun ñoom ñu dindi ko waaye tey nag incha allahu rabbi loolu lépp dina leer comme ni ma leen ko waxee dafay fen ay fen yu tooy kat ne leen ko comme mën naa posté na génnee preuve parce que ñun de lépp lu ñuy def dañ ci am reçu am ci preuve parce que fépp foo dem ci àddina fooy digleel tey ci àddina dañ lay jox reçu jox la preuve ne leen ko mu génnee preuve buy wane ne Ousmane Tounkara moo yónnee waxuma la cinquante mille dollars de bari na dix mille dollars jóge Amérique ñëw Sénégal musu du ko gis parce que man liggéey bu set lay liggéey te man je suis honnête de tout ce que je fais et je suis responsable de tout ce que je fais américains yi nag yàlla dafa def xam nañu leen ba pare ñoom xamuñu ne américains yi ñoo ma gën a xam sénégalais yi ndax Amérique laa def trente et quelque ans maanaam plus de trente ans de ma vie Sénégal dix-sept ans laa fa def fukki at ak juróom-ñaar laa def ci Sénégal Amérique def naa fi presque trente-trois ans amul benn tarfatal ay ni nit ñi ma xam ñu mën a génnee ñu ne la Ousmane Tounkara moo yónnee dix mille dollars Sénégal loolu musul am ndax man exporteur laa damay jënd Sénégal fii ay marchandises ay bagages ak yeneen ak yeneen di yóbbu ay conteneur Sénégal sama xaalis Sénégal laa war a amee liquide mu ñëw Amérique donc xam ngeen ne day fen fen yu tooy kepp di sosal ay doomu jàmbur di accuser ne leen ko mu dugal preuve ku mën a dem bay dugal ay preuve fu ñuy jàppee Ousmane Sonko kuy mën a dem bay dugal ay preuve ay ay ay homme de tenue di teg nit ay fetal lu ne preuve bu ne yaa koy génnee ci Sénégal ak say duul génneel preuve buy wane ne Ousmane Tounkara mii de loolu nga wax mooy dëgg moom moo yónnee cinquante mille dollars jóge Amérique bari na de cinq mille dollars rek may naa la ko doo ko gis dangaa mën a fen yéen yaakaar ngeen ne américains yi ngeen di nelawal waaye justice américaine xam nañu leen moi mon cas nee naa leen jurisprudence la ñëw leen Amérique ma duma waat leen nee naa leen soo leen bàyyiwul Ousmane Sonko billahi wallahi tallahi vous vous aurez le plus grand regret de votre vie gis naa leen sama photo yi mi ngi ci seen panel yi ak seeni ay vidéo montage yéen a modde yéen yéen a ngi ci ay vidéo montage ba léegi loolu dépassé nañ ko ay fake news jël ay vidéo ay ay deep fake ay tappale di monter di defar ak a duul ak a dajale comprendre leen dara lu xew rek nag ngeen ne Ousmane Tounkara la vous n'avez rien compris je suis très bien préparé contre vous yàlla man xamul ne Macky Sall xamul ne yàlla dafa def d'accord Ousmane Sonko mooy mu Moussa nabillahi Moussa wu firawuna bi nga xam ne moo nekk senegal waaye yàlla dafa def aussi ne que bi mu yónni nabillahi Moussa am na ay malaaka yu bari yu ko waroon man bokk naa ci benn yooyu nous on va protéger le président Ousmane Sonko et ce projet jàpp ngeen sénégalais yi dugal leen kaso yaakaar ne kenn dootul wax laal ngeen laalaake am ngeen problème seen problème fii la gën a màggee sénégalais yooyu ngeen jàpp dugal leen ci biir kaso bi ñooñu li doon li ñu doon wax sax dafa rafet waaye léegi ñun dinañu wax lu saf-sap jël kaani xeeñ di ko dugal seen bët yi di ko dugal seen loolu yi te doo leen ci man dara imaginel ma leen di koy dërëj suba ba guddi jot doo ci man dara foo leen ma porter plainte au niveau international avocat yi gën a xarañ laa am maa leen wax lii je vous attends et les sénégalais sont avec les justes man sénégalais yi man la ñu àndal du yéen bu doon dix mille sénégalais ñoo àndoon ak man bañ may jàpp la première fois tey jii des millions de sénégalais ñoo ànd ak man te gëm projet bi léegi ndax man seede laaj ndax maa ngi gisal sama bopp waaye gars yi loolu taxumaa jóg nii tey le numéro 9 fàtte ngeen numéro 9 bi ngeen gis sol maillot bu rouge bi di boom sénégalais yi di leen rey doomu agresseur la te moom agresseur la mi ngi nii moo nekk nii moo nekk nii numéro 9 mi ngi nii kii mooy numéro 9. léegi nag dinaa leen defal ay révélation yu garaaw ndax information yi biñ ko dajalee dañu dajale lépp waaye nag wax neex na de. waaye ci gémmiñu boroom la gën a neex bàyyil ma tegal leen ñu indil leen détail par détail kuy numéro neuf fi mu dëkk kuy baayam baayam lu mu doon liggéey mbër yi fu ñu daan dem asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu soxna si ñu ngi lay ziyaare waaw asalaamaaleykum waaw maa ngi delloo ziyaar bu wér maa ngi nuyu ñëpp plateau bi nag yaa ko moom à partir de ci one million marché à partir de dix minutes quinze secondes duñ la dagg dañu bëgg nga jox ñu détail par détail kuy numéro neuf ñu lay dégg. waaw maa ngi ziar ñëpp. xaaral wàññi euh, téléphone bi. merci beaucoup. waaw euh, numéro numéro neuf bi. Mhm. moom depuis mu nekk xale ñu ngi koy oowee ñuñu. Mhm. ñuñu. Mhm. ñi ko xam ñëpp ñu ko xamee ci turu Kunta. Mhm. Kunta la sant. ñuñu Kunta. moom ñuñu Kunta. ñuñu bi nag. Mhm. xëy na am na beneen tur bu képp ku ko xam si ñuñu nga ko xamee. Mhm. bu beneen tur aussi nit ñi xamuñu ko si. Euh, papam mu ngi tudd Assane Kunta. mooy papam moom nag papam mu ngi euh, amee xaalis ci événement naar yi. Mhm. événement naar yi nag. soo ko déggee mooy problème mu Mauritanie ak Sénégal. Mhm. moom moment boobu charrettam la daan yor. Mhm. daan dem ci bitik yi daan jël di euh, voilà. Mm, si ni ma ko mën a waxee daal da daan agressé. moom papa moo géré woon euh, fi nga xamante ne moo nekkoon cinéma Al Akbar. côté boobu moom moo ko géré woon. Mhm. moo nekkoon foofu temps yooyu agresseur bi nga xamante ne moo nekkoon ndom foor daal ki nga xamante ne moom lañ fa gënoon a ragal. Mhm. mu ngi tudd Assane Kunta Assane Kunta moomu na. Mhm. mbër yu mag yi xam nañ ko. mbër yu mag yi. xam nañ ko bu ma waxee mbër yi ne veut pas dire ay ñoom Balla Gaye ak ñii. xëy na ñooñu xam nañ ko mais mbër yi nga xamante ne. Eh, dañu xaw a âgé léegi. Mhm. nekkatuñ si laaj. Mhm. dañoo âgé. Mhm. mooy comme temps wu euh, ñoom Moustapha Gueye. ñooñu biir këram. daan nañ fa entraîner. ki leen daan entraîner mu ngi tuddoon Lato. entraîneur si biir këram. ñoom daan nañ fa entraîner. ñoom na mën nañ bañ a xam ñu ñu mii kunta ñoom mun nañ ko bañ a xam ndaxte moom mooy caatu papam te papam décédé na papam génn na àdduna e si ay doomam moom moo gën a niroo ak papam ñoom bu ñu ko xoolee dinañ xam ne kii doomu Assane Kunta la parce que ci teint bi mm-hmm. ak ci taay bi mm-hmm. benn lañ mm-hmm. euh, ñu ñu kunta moomu am na benn grand frère boo xamante ne ñi ko xam bariwul grand frère bi nga xamante ne moo topp ci kooku mu ngi tudd ci kitoo kunta ki topp mu ngi tudd xaadim kunta Mm-hmm. benn grande sœur am mm-hmm. mu ngi tudd Fatima mm-hmm. Kunta ñu ñu Kunta nag mooy caat moom nag euh, âge am juste nee vers rek laa mun a wax cent quatre parce que boo nee nee peut-être un an plus ou un an moins léegi ñoom ñu ngi juddoo Grand Dakar mais ñu Kunta fi mu nekk nii parcelle la dëkk. Mhm. Grand Dakar ñoom ñëpp xam nañ mhm. papam mhm. Assane Kunta waa Dakar xam ngeen ko caatam mooy borom numéro neuf boobu ñi fa daan entraîné ci lato entraîneur Uh-huh. borom numéro neuf boobu caatu Assane Kunta la uh-huh. ah. uh-huh. Indochine unité dix foofu parcelle la ku ko fa seet gis ko terrain Indochine mm-hmm. unité 10. Mm-hmm. ñoom xam nañ ko. Mm-hmm. ñoom xam nañ xam nañ euh, ñu ñu kunta bu baax a baax. léegi nag euh, këram gi nekkoon unité 10 moom Assane Kunta. Euh, moom bi mu décédé dem moom dañ ko jaay. léegi. li ñu am si information mooy mm-hmm. moom mm-hmm. du xaritu dof nday mm-hmm. rivalu dof ndey la rivalu dof ndey la rivalam rival c'est-à-dire que xam nga ñoom bandi yi dañuy am par clan bokkuñu clan mais dof ndey bi ko Amadou Sall joxee xaalis jox leen ay scooter moom dafa approché Mm-hmm. commencé di def affaire ngand ngandalu di wane que ne ñii maa leen gën a garaaw. Mm-hmm. Aliou Sall approché ko. Mm-hmm. donc moom Aliou Sall waaw maa ngi bu wér loolu moy information bi. jërëjëf ñu ngi kontaan nañu trop jërëjëf kontan nañu merci beaucoup pour l' information jërëjëf. ok voilà voilà donc gars yi information xam ngeen fi mu ne te wax dëgg yàlla Dakar ah, ah, ah, maanaam ful la mooy jaay Dakar te ñun ci gat sa gat sa la ñuy dox du ñu tooñ nag waaye képp ku ñu tooñ dinañ ko jëflante ak yow te dama ne le président Ousmane Sonko am nañu responsabilité les Sénégalais à leur totalité à travers le monde am nañu responsabilité jëflante ak Macky Sall mais au plan intelligent comme ni ma leen ko waxee système mu internetu Macky Sall système mu ndoxam système mu courant système système léegi dégg naa sax ne dafa nekk di maanaam benn bennal Casamance yi maanaam nitu sénégalais yiy jóge Casamance di ñëw dakaar mu leen di xoñoñal ak di leen toroxal Sénégal léegi Macky Sall def na ko zone de guerre maanaam guerre civile la fa bëgg duñ ko may loolu de ñun Macky Sall ak ñoñoom la ñuy seppi ndànk génnee leen réew mi continuer waat suñu réew suñu réew kenn du ko taal ñun bëgguñu ko taal Sénégal bandi yi la ñuy traqué ñun déglu leen ma bu baax ñun bandi Sénégal yi lañuy ñuy muy sàcckat yu mag yi ñoom Amadou Ba ñoom Mame Mbaye Niang ñoom Mame Boye Diao ñoom Pape Malick Ndour ak ñeneen ak ñeneen les grands délinquants du Sénégal ay Amadou Sall ay Macky Sall ay Aliou Sall ay Mansour Faye ay ay ay ay ay ay waawal fajri ma tëjee leen Sidi Lamine Niass la fierté nationale wuuteeg Ahmed Khalifa Niass te ñu bokk benn pap lim ñu mas wax ci wal fajiri dañul yéen a ngi continuer honorer peuple sénégalais bi peuple sénégalais bi delloo leen wal fajiri njukkal gis naa kees ci buntu wal fajiri dem leen sotti ci la ngeen am la maanaam la diaspora dinañu wut pexe comme attaqué nañu Copper Express ñu ngi attaqué Wave ñu ngi attaqué Orange ñu ngi attaqué yeneen dinaa leen annoncé léegi création benn plateforme xaalis bu bees boo xam ne ñun ñoo koy def fii ci diaspora bi kenn du ci man dara Macky Sall du ci man dara Macky Sall du ko mën a noot Macky Sall dootu ko mën a attaqué parce que ci diaspora bi lay bàyyeekoo lu ñu mën a dajale muy ay milliards di ay milliards di ay milliards dinañ ko mën a dajale te dina mën a yegg ci destination am te kenn du ci man saala yaay ndeer gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen joxaat dig daje suba suba dinaa ñëw ci booy Bi Nduur ba pare ñëw ci benn militaire Samba booy boo leen gis yi mu yor réseaux sociaux yi lëmbee ko lëmbee réseaux sociaux yi dinaa leen jox rek lancement dugal naa ko ci TikTok bi léegi pour ngeen xam kan la booy bi mi ngi tudd Mass Sey papaam mi ngi tudd Tilo Sarr ancien député APR Jidda Caaroy Kaw ah Macky moo ko indi amerique en 2013 booy bandi bi ngeen di gis ki bandi bandi lu nii nekk militaire américain and shame on you xam ngeen militaire américain lu mu doon un militaire américain nekk militaire ci dëkku oncle Sam gis naa nag benn booy militaire bu patriote mi ngi ci mi ngi ci réseau yi ku am fulla ak fayda nekk militaire kii du militaire de kii loolu yaasin la xam nga wolof am na wax loolu yaasin bugguma tudd tur bi voilà awra kanam la ak awra ginnaaw ni ko wolof di tuddee aussi kii markatu awra la markatu awra ginnaaw la donc Macky Sall la ko fi indi woon lii muy ngand ngandulu ni yëpp du ko gëm senegal gëmul dara ci Sénégal c'est quelqu'un qui est en traître un fils d'un traître ne peut être qu'un traître parce que John F. Kennedy daf ñu daan wax ndeysaan daf le fameux président américain John F. dafa daan ne ask not what your country can do for you but ask what you can do for country xam ngeen ku ñàkk jom mii moom lu mu defal Sénégal di gën a dooleel Macky Sall wax leen ma ci ban Sénégal bu normal la ñu nekk yow nga war a nekk ministre wala doomu sénégalais wala militaire wala quoi que ce soit nanguwuloo wax ci quatre-vingts morts yi Macky Sall di rey nga ñuy wax ay infrastructure infrastructure xam nga yàlla lu mu wax ci doomu aadama nee na benn ruu doomu aadama moo ëpp valeur lépp lu nekk ci adduna bi ak li ci biiram déglu leen ma yàlla dafa ne benn bakkanu doomu aadama moo ëpp njariñ àdduna bi yëpp li ci ak li ci biiram bakkanu benn doomu aadama donc vous nous parlez d'infrastructure vous nous parlez des infrastructures oh Macky lii la fi defoon Macky lële la fi def vous êtes sérieux la bakkan la ñuy wax on parle de bakkan quatre-vingts bakkan ngeen ñuy wax sept cent personnes en prison yéen waxu leen ci injustice yéen vous êtes injuste ay naafeq ngeen képp ku dëkk tey ci Sénégal ngay wax ay voilà li ñu yàq ci Sénégal alalu jàmbur ayu you kidding alal doomu aadama moo koy liggéey bakkanu doomu aadama ak alal lu gën a fort dama leen koy laaj rek bakkanu doomu aadama ak alal lan moo gën a fort man de bakkanu doomu aadama moo gën a fort ci man alal pour man du dara parce que alal moom nee nañu mën nga ko remplacer à tout moment yàlla da ngay gis nit ku juddu amul dara mu nekk milliardaire xam ngeen ki gën a riche ci àdduna bi tey ki gën a riche ah kam ngeen ko Jeff Bezos la Jeff Bezos dem leen ngeen xool jaar-jaaram àddina c'est un fils d'un pauvre xam ngeen keneen ki gën a riche riche wax leen ma tur bi waaye indil leen ma suñu fameux Richard américain bi ci garage yu yaayam la commencé société am déglu leen ma de ci garage yu yaayam la commencé société am dans le garage de sa mère Bill Gates garage yu yaayam la commencé liggéeyam est-ce que xam ngeen il fait parmi les hommes les plus riches du monde du monde entier quatre-vingts morts ngeen may wax ay alalu àddina waaw Macky li mu defar ci infrastructure waa ku ko yàq voilà ku ñu tiire yaa perte vous êtes sérieux là ngeen defee ne dinañ leen ci bàyyi man dinaa jiite sénégalais infrastructure Sénégal yëpp dinaa ko paralyser boo leen bàyyiwul la président Ousmane Sonko du yoon infrastructure moo leen ñor man bakkan moo ma ñor yéen ñu ñàkk jom ngeen amu leen fulla amu leen fayda c'est ce sale militaire de merde de la je vous dis ma ñëw jox leen ko nii duma leen dégluloo li muy wax ndax yu ñàkk xorom lay wax déglu leen yi muy wax déglu leen déglu leen li muy wax déglu leen. kii moo ñàkk jom. laay ma maa am lu ma metti kii moo ñàkk jom. déglu leen déglu leen oh mon dieu quand je l'ai écouté j'ai dit yàlla man dama naroon yóbbu samay doom ci militaire Amérique waaye damay bañ ñu mel ni kii. bokk ci ñi xam Sénégal dañu am dañuy am plaisir di voir le Sénégal mu takk. xoolal golo bi déglu ko li muy wax gëmu ko. Sénégal. déglu ko tey bokk na ci dëkk yi nga xamante ne tey. déglul fenam dañu ko naw. ci démocratie day fen déglul ci ñi ko xamul. déglul Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xamante tey am na dëkk yu bëri yi nekk ci biir Afrique. ne leen ko mu wan leen ñaan yàlla mu wan leen preuve tey ci développement ak infrastructure. déglu yàlla yóbbu leen foofu ñu yegg fa. wax ñu ci quatre-vingts morts yi. man mun naa ko seede. yaa mën a fen. toog naa huit ans dew ma Sénégal xaw ma neuf ans. Sénégal laaj leen ko ku ko indi. Sénégal am na sax yenn koñ yoo xamante ne sax mun ma ko xàmmee. yaa ñàkk jom tellement que le développement bi ma fekk Sénégal ak li ma bàyyoon Sénégal en 2013. c'est petit. donc bu ñu nekkee ci dëkk boo xamante dañoo nekk di ko construire. doo dara mu nekk en construction. en construction pour 60 di jéem a def lu muy di jéem a defar réew mi. 60 ans construction. am ñaari 300 ans construction. dafa opposé wu ñaari individu ki ñu naan Ousmane Sonko ak Adji Sarr déglul kenn ki ba muy dem foofu di def ay di di fa dem. déglul kenn xamul la moo ko yóbboon ñun yëguñu ñu ngi toog suñu kër nekk ci en conf. déglul mu ne boobu ñu ngi toog suñu ay kër. dégg ngeen vous voyez vous voyez des individus comme ça vous voyez et pourtant dafa am lu ma leen di mayaat sénégalais xam nga ñun sénégalais moo yab moo yab boppam rek. mais pourtant est-ce du même Adji Sarr bi moom la ñu dégg ci audio mu confirmé ne moom ak Ousmane Sonko ma su ñoo sekk dara mes frères et sœurs que du même Adji Sarr bi la dégg mu wax ak MC Niass bay na ki ko yónni Mamour Diallo la ba Mamour Diallo naan ko li ñu waxante incha allah bu dossier bi jeexee voilà comme ni ma ko waxante ak yow ñu wutal la passeport nga dem bitim réew loolu dégguñu ko est-ce que du même docteur Alfousseni Gaye dafa confirmer li Adji Sarr wax mu ne kii kenn sequl ak moom waxul kenn siifu ko de il faut loolu leer docteur Alfousseni Gaye dafa ne kenn sequl ak Adji Sarr ñoom dañu yàgg fen ba gëm seeni fen regarde-moi ce clochard là kii xam ngeen li ko yóbbu ci militaire américain Walfare dafa am ñu bari dañuy dem lakkatu ci ginnaaw militaire américain pour mën a am lu ñu am am salaire wala mën a dem jàngi tuuti mën a dem defi lii un vaurien comme ça kii demul pour servir nation dignement kii jaam la jaam nag jaam rek moo ko mën a jur waa salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu subaa dinaa ñëwaat dimanche dinaa yëngalaat toile bi bu soobee yàlla suba dina ñu yëngalaat toile bi waa salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu